waaw asalaamaaleykum eh, lu jëkk maa ngi nuyu ñi nekk fii rek eh, di commencé les responsables ñi toog fii nga xam ni ñu fi toog ñëpp ay responsable lañ de l'APR ñoo xam ne dañuy liggéey ci parti bi liggéey ci Sénégal ñoo xam ne am importance ñu toog suñu wet ak ñu toog ci biir salle bi yëpp jóge ci ay gox ñoo xam ne liggéey bu ne lañ fa def rawatina ci département de Louga ci commune de Seyeur kon léegi tey lu ñu fi toogloo tey mooy ñaari mbir euh, bokk ci li nga xam ne yaa ngi liggéey liggéey ba xam ne li ci olof wax di wax golo de bay baabuñ ju dum ñun dootu nangu loolu depuis fin deux mille huit ba tey euh, ñu ngi yëngu ci développement réew mi ñu ngi yëngu ci politique de l'APR euh, de président de la def na lu bari ci biir réew mi def na lu bari ci biir département de Louga waaye nax ñu ngi liggéeyal parti bii di liggéeyal réew mi di liggéeyal département la waaye nax jot no bu dee dañuy jël ay responsable jox ko département bi liggéeyuñ li ñu war a liggéey dafa jot ñu wax ba pare dikk aak ah, ma defe ne ñoom ñoo def ñoom ñoo yor liggéey loolu lañu bëggoon na fi jóge kuy liggéey nañ ko wane liggéey te lu ñëpp bokk dañ ko war a partage beneen bi ci ay nomination yi nga xam ne dañuy def ñi jiitu département di Louga dugg ci biir neeg biir noom ñu leen neexat yëguluñu ko les responsables du département yëguluñu ko surtout ba ñëw sax ci haut conseil collectivité territoriale bi ñoom nga xam ne ñoom ñu jiitu département bi def nañu li ñuy def yëguluñu ko benn def responsable wala ñu gën a ñu bari ci responsable département bi yëguluñu leen ci biir département bi rawatina conseil municipal yi nekk ci 17 commune bi ak conseil départemental 80 yi nga xam ne ñoo ngi ci biir département bi taanu ñàkk ñoom yéeguluñ leen bi ñuy tànn ñi nga xam ne ñooy nekk toogi haut conseil collectivité nga xam ne ñoo toogal fu département Louga loolu nag lañ wax ñun dañ koy ñaawlo gannaaw bu ñuy ñaawlo eh, li nga xam ne ñoom la président wóolu jiital leen département bi ñu nekk ay géant nekk ay responsable département bi lu fu ëpp fukki at élection bu ñëw rek ñu daanu surtout rawatina la ren nga xam ne ñi nga xam ne ñoom ñoo jiit département ay ministre ay ay ay ay député ay président haut conseil ak ay ministre chargé de mission ak haut conseil collectivité ak ay euh, conseil économique social ak ay chargé de mission nommé yu nga xam ne ay directeur ñu nommé leen ci biir département loolu nga xam ne ñoom ñëpp day nërmela ci élection bi kon nag jot na l'alternance générationnelle bi ñu doon wax ñi toog fii ci biir saar c'est des jeunes ci biir Sénégal yëpp ay xale lañ xale yoo xam ne soixante-dix pour cent population Sénégal ñoom ñooy majoritaire président war na leen geestu ñoom ñoo koy jàppale ñoom ñoo xam réew mi ni muy demee ñoom ñoo xam ñoom ñooy votants yi ñoom ñooy def lépp jot na il est temps gox bu ne ak dëkk bu ne commune bu ne département bu ne président a la République ci boppam xool xale yi geestu leen jàppale leen nga xam ne bu soxlee dara ci réew mi dinañ ko jàppale parce que ñoom ñooy wate ak jigéen yi kon jot na président jàppale leen li mu leen war a jàppale beneen bi mooy li ñuy tànne ay ñi nga xam ne ñoom ñooy dem siège ci ot conseil ak yeneen di nga xam ne dafa am ñoo xam ne ñoom lañ dénk département de Louga dañu toog seen bureau rek na li nga xam ne lu leen neex ñu ne ñii lañ tànn fekk ñëpp ànduñ ci kon ñun ñu ngi ñaawla loolu boo xoolee département Louga tey lu mat sept communes wala huit communes yi ñu ci perte li ci gën a am solo mooy depuis 2012 ba léegi ñuy jiitu département bi ñu ngi xeex ñiiroo ngaayo guddi bis bis bu ne moo tax ren daanu nañ ci biir commune de Louga nga xam ne foofu la post yi nga xam ne président ñoom ñëpp bu dee ñaar fukki poste la président bi ci département bi fukk ak juróom-ñett yi ci biir commune waaye ñoom ñoo daanu tey ñoom nag mooy xeex guddi ak bëccëg depuis 2012 ba mu am 10 ans ñu ngi xeex seen résultat moo génn donc loolu président war na si jël mesure ñun nag tey li ñu tax fi toog mooy wan président république wan sénégalais dootuñu nangu di liggéey ñeneen di ko utiliser di ko aakimu du pare duñu liggéeyal département bi beneen bi président def na ci lu bari ci biir département lu réalisation bari waaye ñiy jiitu te dégguñu benn yoon ñu wax ko wala lu ci gën a bari dañuy wax ñoom ñoo ko def or que président moo ko def parce que bi nga xam ne président joxul leen ndomb tànk yi boobu ñu woon fii ci Louga ñu fii ci Sénégal ñu fii ci Louga defuñu woon dara bi demee ba président jox leen ay ndomb jox leen ay ndomb yu mag ci biir gouvernement bi boobu la ñu commencé def réalisation yu ci biir Louga kon kay président moo def réalisation yooyu waaye du ñoom parce que ñoom bi ñu leen joxul ndomb tànk yi ñu ngi woon foofu defuñu woon dara. waaye bi ñu leen joxe ndomba tànk ñu def li ñu def ñoo ngi masque président di wax ñoom ñoo ko def loolu moo war a fi dàq lépp li ñuy def président moo ko def parce que moo leen jox pour ñu def ko waaye dañuy dem di wax ñoom ñoo ko def di defuñu loolu moo tax na ñun dañuy wax président tànnin bi ñuy tànn haut conseil collectivité territoriale département Louga jaarul yoon yegluñu fenn informe mu ñu responsable yi informe ñu conseil yi nga xam ne ñoom ñooy wati loolu moo tax na ñu wax président na def attention sinon position dana yóbbu ci département parce que bu dee yow dangay liggéey ba pare saa waa dëkk follo ba pare saa waa gox follo ñi nga xam ne seen waa gox ñoo fol ba pare président fol leen bi ñuy tànn wala bu ñu wax du ñu la yegal bu yàggee da nga gis sa bopp loolu nax dañ bëgguma jeex leneen li ma ci yokk man en tant que premier adjoint maire commune de Seyir arrondissement de Keur Momar nga xam ne Keur Momar moo am ladde guerre Lac de Guiers moo yor dundin ñu bari ci Sénégal surtout Dakar Lac de Guiers moo koy jox ndox tey boo demee ci zone de Lac de Guiers bi ba nga dem département Dagana boo tourné ñi nga xam ne ñu ngi autour de Lac de Guiers ñoo génne pauvreté ci biir Sénégal bari na ñoo xam ne amuñu ndox bari ñoo xam ne amuñu ay centre de santé amuñu ay ambulance amuñu ay poste de santé amuñu route pourquoi lool du ñun c'est des tey Keur Momar am na ñetti usine ndox c'est des la ñuy puiser suñuy Lac de bi ba pare ñun ñoo gën pauvre ci Sénégal amuñu piste production amuñu goudron kër yu bari amul courant santi santé yi ambulance amuñu ba tey suñu jigéen yi ñoo ngi wasiñ ci kaw ay saret loolu defar fi dàq ñun nag nga xam ne à partir de Lac de Guiers depuis département Dagana ba nga ñëw Keur Momar Sarr nga ñëw Louga même sax ba ci département Kébémer même sax ba ci département Tivaouane dañ bëgg ñun suñu bopp ñu gis ci loo xam ne mu ngi génn ci Lac de Guiers surtout département de Louga ak département de Dagana boo gisee tey surtout man sama commune bi mu nekk commune de Seyir c'est la commune bu nga xam ne moo gën a pauvre moo gën a enclavage biir Sénégal amul dara ñaar ba ñett dëkk ñoo fa am courant ndox am na même dëkk yi nga xam ne autour de la guerre bi amuñu ndox benn poste santé moo nekk ci biir commune bi amuñu ambulance suñu jigéen suñu jabar suñu doom ñëpp jigéen ñëpp ñu ngi fa ci saret ba tey kon ñu ngi wax fi dara brique jot na commune yooyu surtout suñu commune yi gis suñu bopp ñu def investissement ci zone rurale bi président na nag xam ne monde rural bi moom lañ gëm moom lañ jàppale ñoom ñoo koy sauver toujours bu élection ñëwee waaye bu sedd ñëwee duñ leen yëg loolu nag il faut mu dàq ci biir réew surtout département de Louga tey li ñu gis ci département de Louga dafa ñaaw ci ay njiit ay njiit ñuy xeex ba daa benn nërmeel ñoom ñëpp ba seen gaal bunn te ñoom la ñuy def privilégié yëpp ci biir département bi loolu ñun on n'accepte pas ça te loolu président gis na lu jël si président haute conseil collectivité territoriale lu jël si ministère du département lu jël si ministère ay chargé de mission ay haute conseil yu fa fol ay conseil économique social yu ci gën a bari ñoo xam ne si biir commune Louga lañ nekk ak ay directeurs yu nekkee si biir commune Louga ak président ak département président conseil départemental ñi nga xam ne ñoo wax ñoom ñoo jiitu parti bi si département di keex bi nga xam ne nërmeel nañu nii te ñoom ñoo jiitu département bi di seen commune commune département commune Louga bii daanu loolu ñun dañ koy ñaawloo président dañuy wax ndax na nga xam ne collectivités territoriales yi nga xam ne ñoo nekk ci département de Louga seize communes yi wala dix communes yi wala seize yi nekk ci monde rural bi toujours ñoom ñoo koy sauvé ci élection waaye bu sedd ñëw ñoom ñoo nekk ci gannaaw loolu nag dañuy wax na jeex surtout alternance génération bi nekk tey ci biir département bi président na nga leen gëstu nga jox leen ay responsabilité nga nommé leen yoo nga xam ne danañoo la ŋànkal électorat département bi danañ liggéey département bi ba département gis boppam ci biir li ngay def ci biir réew Oui, c'est pas fait. en français. Ouais. C'est Bon, je m'appelle Djibi Hamadou Sow. Bon, je produis alias Ben Laden. Je suis premier adjoint maire, commune de Seyeur, arrondissement Kermansar, département de Louga, responsable politique l'affaire du département de Louga. Ce qui nous fait réunir aujourd'hui tous les responsables, surtout les jeunes alternances générationnelles du département de Louga. Nous sommes assis aujourd'hui pour évaluer les élections législatives qui passent le 31 juillet 2022. Ce que nous avons vu au niveau des départements de Louga. Deuxième point, c'est que, que nous regrettons nous sommes désolés, les responsables qui sont dressés le département, c'est qu'ils sont dressés comme ils sont, fonctionnent dans le département. C'est en train de battre entre eux jusqu'à le département, il est tombé. Donc, tous les responsables du département, ils sont concentrés dans la commune du Louga. C'est des ministres, des directeurs, des président haut conseil, les ministres chargés de mission, haut conseil, tous les postes que président a donnés, les majorités des postes, le président a donné ça Louga, avec les directeurs. Aujourd'hui, ils sont l'élection. Donc, pendant 10 ans, plus pendant depuis 2012, ils entrebattent entre eux. C'est pour ça que les populations ils sont les ignorées aujourd'hui. Les populations ils sont venues tourner le dos. Cette responsables qui sont concentrés de battre entre eux dans le département de Louga. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes désolés, nous disons au gouvernement du Sénégal, nous sommes président de la République, les responsables de la paix. Nous travaillons toujours pour les présidents de la Mais il est temps, il est on a silencé beaucoup pendant dix ans depuis 2012 nous sommes silencés travaillés mais aujourd'hui nous sortons pour parler avec les populations parler avec les présidents de la pour qu'il est temps nous acceptons pas travailler qu'ils nomment des gens qui ne font rien dans le département c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis ici pour regretter ce qui s'est passé dans le département parce que si un personne sur un commune il a tombé mais si les gens que qui sont dirigés les partis, qui sont dirigés Benno Bokoyakar dans le département, c'est eux tous qui sont tombés dans leurs communes. Ça, nous, on regrette ça. Parce qu'on savait ça. Parce qu'ils éteignent leur téléphone, ils répondent personne, ils parlent avec les personnes. Le deuxièmement, quand ils euh, le président ne l'est pas nommé, ils n'ont rien dans le département. Mais aujourd'hui, le président, il est le nommé, les postes. Ils ont commencé à travailler le département. Il dit, c'est eux qui ont fait. Ils, parlent, ils ne parlent jamais. C'est président qui a réalisé ce qu'on a réalisé dans le département de Louga. C'est ça qu'on dit, il faut que ça finisse. C'est président qui est nommé. C'est pour ça qu'ils sont en aujourd'hui faire quelque chose. Même s'il fait quelque chose, c'est président qui a fait ça dans le département de Louga. la zone de lac de guerre. C'est nous de l'eau à la région de Dakar, toutes les avec les villes urbaines qui sont autour de les tuyaux qui viennent de lac de Guerre. Il y a trois usines de l'eau qui donnent Sénégal l'eau qui sont à Kermamarsar. Mais vous, nous constatons aujourd'hui, jusqu'au département de Louga, arrondissement de Kermamarsar, jusqu'à jusqu'à département de Lingué, euh, département de Dagana, plutôt, les populations qui sont autour de lac de Guerre sont plus pauvres dans ce pays-là. Ni électricité, ni piste ni goudron y' a pas de centre de santé y' a pas de poste de santé y' a pas de oh, oh, oh, l'ambulance ambulance pourquoi le lot de lac de guerre les usines de lac de guerre donnent de beaucoup de milliards dans le gouvernement dans le budget du gouvernement pourquoi nous sommes des pauvres nous n'acceptons pas ça aujourd'hui nos femmes nos sœurs nos nos nos nos nos femmes si ils sont enceintes ils sont en couche sur les charrettes sur les calèches Ça, il faut que ça finisse dans cette, dans cette zone-là. C'est ça qu'on appelle on appelle le gouvernement du Sénégal. Il faut des investissements dans la zone de la guerre. Autour de la guerre, nous sommes tellement enclaves, nous sommes tellement pauvres, nous sommes tellement beaucoup de malades, beaucoup de... Il n'y a de poste de santé, il a, a, rien là-bas. Donc, président, il faut que vous regardez ça. Troisième chose, les responsables du département de Lugo, ils sont tombés. les géants du département de Louga ils entrebattent entre depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui c'est pour ça qu'ils sont tombés c'est pour ça que les populations de Louga ils sont tournés dos cette responsable là ça il faut président regarde ça cette semaine ils sont allés dans leur bureau pour choisir ce qui choisirait haute collectivité territoriale pour le département de Louga sans informer les responsables du département sans informer tous les conseils municipaux de cette commune du département de luga et les, tous les conseils municipaux de conseil départemental de Louga. Ça, on n'accepte pas ça. C'est pour ça que nous, les jeunes, nous, les l'alternance génération du département de Louga, nous demandons, nous disons en président public, nous n'accepterons pas ça. Il faut regarder les responsables que vous nommez au nom du département de Louga, vous laissez les, les gens qui travaillent. Ça, à partir de maintenant, nous n'accepterons pas on vous Si ça continue comme ça encore, nous risquons tomber les élections de euh, euh, les, les conseils qui feront le 4 septembre au nord du département de Louga. en mbiyetemi ko jibi amadou sow eɓe kamɓe ben ladden mbiiteemeke Djiby Amady Sow eɓe mbiyami ɓe nelaɗen responsable politique département de Louga premier adjoint mais au maire commune de Seyér jonde nde hannde saabi jonde nde ko wadde ɓeto e manam ko tubato élection coɓogol joɗantoɓe suudu sarɗiji woni élection législatif baɗɗo capanɗe tati e lewru men e jokko e, e 2022 ɓen noɗo e cenka ko ɓedde ko waɗi ko e haalde kadi holko waɗi ɗum waɗi e kadi e haalde ko woni ko département ko bonne haa hannde ɓesngu département fof wahliti yeddi ɓe ɓe nganndanɗo hoore ɓe ngardi département o sika yi hannde o nuwode département de lugo kadi hannde sukaaɓe hannde sénégal il faut président de annda temedere yimɓe fof hannde nder e capanɗe jeeɗiɗi ɗe ko sukaaɓe e worɓe rew kamɓe lammini ɗum kamɓe mbaawi ɗum lammin kono kadi koɓe woppaaɓe ɓe njiyaani koye maɓɓe ko waɗata ko ɗum noon ɗum fot gasa e nder sénégal e sénégal fof noon tagi layde ɗum fot gasa ha tengti noon ko kaalami ɗo pour département de lougo ɓe ɓe nomi toon gila 2012 ha jooni koɓe haɓat jemmo ñalaama subaka keeɗi heɓe kaɓa hare duuɓi sappo hare ɗum tagi hikka o yani e nder département luggo walla commune aji kewɗi ɗiɗi ganduɗa surtout commune am gandanɗa hoore ma kamma nomi ɓe ɓe nomi arde ɓe département woni commune de loggo liɓi ɗumen ka haare hakkude maɓɓe goto fof yiiɗa yo won goɗɗo wona ha population commune de loggo yeyi yeddi ɗumen natti sohlude ha yeedi ɗumen saabu hara nde ɓe kaɓat ɗum noon min mbi président hannde minen ɗe ɓe gandanɗa hoore ma amin ligganoo président gueliñande fuɗɗi diɗɗal hanti noon min gonta jagde deƴƴude liggaade haa min tampa yew yahaade totta ardina ko nganndanɗo hoore ma mi ligganaka département o ɗum min gonta ɗum jam saabu kam hene heewi waɗe département mais ɓeɓe ardina département kala men ƴettuɗo konngol wiyata kay waɗi ɗum or ko ndede président ardinaɗe département de président ardinoɓe mbaɗa ko président waɗi fulɓe mbi ko ƴeew dasol ƴeew ko ɓe mbaɗa ko président ardinoɓe wadde koɓe mbaɗata koko pirda totɗumen kono kamɓe ɓe gone déporté hen mbiya keɓe ko ɓe kollirano pirde waɗi ko ɗum min mbi pirde yo ɗum gas hanti gueɗel ngel ɓeɓe président nomno gardi parti o ardiɓe parti o ministére uji député ji président conseil départemental ardiɓe e, ministére uji chargé musique haute conseil ji directeur uji fof so tawi nommé département ɗo ko sappo ɓe waɗi ɗumen ko nder commune loggu hande fof ɓe jandi e poɓɓe jani hannde kamɓe jani e ndeer département wona heen gooto yani wona gooto bonni kamɓe fof ardiɓe e kamɓe jani ha ndeer département minen commune aji gonɗe ladde noo min gonta jaɓ hanti noon liggaade kala élection garɗo minen tan cowata président département nokku kono kala de peccugol ari min jeyata koye amen ɗum noon président min mbi yo ɗum gas hanti yomin jeyi koye amen ko waɗata ko minen commune sappo e jeegom gonɗi e nder département wadde hanti noon foti totta amen geɗal amen ɗum min namni surtout alternance e sukaɓe yonta yontoɓe hannde e nder département e nder ladde nde yo président anndu kamɓe mbawi ɗum wallu ko yiiɗi ko kamɓe mbawi ɗum nawan ko ko kadi e kamɓe gotata siko ƴeewani ɗumen soɓe totti ɗum caggal o dañata ko sohla nder lesdi ndi ɗum noon hanti il deƴƴere nde ɓurti min jiiɗa lay kono ala min laayi hanti saabu deƴƴere nde ɓurti saabu ko min mbaɗata ñande pop si peccugol waɗi totta ɓe nganndanɗo hoore maɓɓe ngonat ɗon heen mbaɗa intérêt mumen hoore mumen heɓe kaɓa nder komin haaɓe liɓa ɗo ɓe ngonɗo min ngonta jaɓade ɗum waɗ oɗo haut conseil coɓeteeɗo kamɓe ardiɓe ɓe njahi ɓe jooɗe nder suudu bureau maɓɓe ɓe cuɓini koye gonɗi mairie ɓe namnaki conseil département ɗo ɓe kalnani responsable département min jaɓata ɗum président yo andu soko ƴeewande ko soɓate ko ngol ɗo pour jooɗoytoɓe ko e haute conseil ƴeewani nomaande nder suka nomaande ɓe ligganto ɗum ene waawi élection oɗo haute conseil garo siko reenaki opérate département ɗum aɗanndi minen logo hay département keɓmer heen jeeya a département tiwawon seeɗa a département dagana so a minen ɓuri won min ɓuri won pauvre ɓuri won nder liste or que minen tottat dakar ndiyam isinaji tati ndiyam nani karma marsa kono sa ari to toon godroŋaji laabi ɓaleji a yiyata toon eh, laabi boɗeji a yiyata toon gorɗen mbaɗi kuura a yiyata toon cafrorɗe ha heewi a yiyata toon ambulance uji ha joni rewɓe amen rewɓe amen wandiraɓe amen rewɓe waajiraɓe amen rewɓe ha joni hene jibina dow saretaji ha joni neɗɗo hene toon sowa ha daña cukalel taw meeɗa yeede docteur mbaɗɗum consulté ƴewɗo ɓandu muɗum ɗum noon min minen emin jeeya worɓe sénégal saabu hannde ladde guerre kay yarnata dakar e gure mawɗe gonɗe hakkude richatol walla hakkude dagana e dakar surtout département lawgo minen jarnata hannde gure mawɗe gonɗe ɗe riɗɗi ko ɗon pourquoi joni noon ɗin milliard uji kewɗi ndiyam amen min mbawa hen fewnan laabi ɓaleji min mbaen laabi boɗeji min mbaɗnen courant hande commune am om gonmi commune de seyére mi gandanɗo hoorema ko wonata capantati wala walla nogas joyi kilométre min ko wonat capantat kilo men ɗum jogii ndiyam e waleede fosil minen ɓuri han wadde ɓuri hannde won rokku rokki manam ɗo lonjaade alaaɗa min ndewi a nder département de logo te minen kala ko président ƴetti min mbaɗan ɗum cent pour cent te kadi hannde poste santé gooto woni nder commune de seyir min gori tati jogii kuura bolol kam haalaaka ɗo rewa haalaaka ɗum noon hanti min mbi président min gonta jabde kadi liggaade yimɓe ɓe nganndaano hoore maaɓe ligganaaki département ɓe ligganaaki commune oɓe ligganaaki département lokoɓe ligganaaki sénégal min min liggo si président hene fecca totta woppa amen ɗum hanti président yi ɗum gasaliji de ɗum tagi e ndeer leydi ndi haa teŋte ɗum tagi ɗum homo tan kala de wote ari homo liɓe e nokkuuji nganndaano hoore maɓɓe ɓe ɓe waɗi ɗon ko intérêt maɓɓe yimɓe maɓɓe wonde hare mawnde ɓe kaɓata ɓe ɓe ardini département noon yimɓe natti ɗum noon min mbippirde yo ɗum ittuɗo kadi haute conseil ɗiɗ nomat min jaɓata yo nomɓe ɓe ɓe nganndanɗo homaɓe liggiraki commune aji gonɗe ladde yimɓe wonɓe ladde suka wonɓe ladde liggeɓe haɓe ma en jeyani min